ma ko waxee mooy ndaw si ñu naan xaw ma ngàmpi xaw ma tàmpi mu toog tudd Cheikh Ibrahima Ñas ci wax jooju munoon na maa saaga man mu tekkiwul dara moo gën mu tudd baay mais ñun ñëpp ñu toog keneen a ngi ñëw dañuy essayer te buñ bàyyi loolu muy jàll te ko bàyyi la ca war nag ñun taaliba bàyyi def nañ ñu ngi toog ñaan nañu ñu quinze jours ndax vendredi bii di ñëw lañ naroon a jël dem kër baay jullee fa ajuma o mbooleem taalibe baay ñu déparé fa dem place Obélisque bëggatuñ benn nit ku tuddati baay te nguur gi du la oo kon nooy tuddee keneen wala nga tudd keneen ñu woo la ndax loolu dañ cee war a boole baay kon buñ ñàkk fayda buñ ñàkk bopp taaliba bu ci taxawul xeex ko man dinaa ci xeex ba teg ci sama bakkan ndax nee naa leen bàyyi moo ma gënal képp kuy toog ci kaw suuf baay moo ma ko gënal ngëm-ngëm la ci man xooluma ngir sama baay la de waaye dama xool du ma defaree man gis nga kii saaga ci internet bi wallahi lazim kooku murit du saaga tiijaan du saaga xaadir du saaga waaye ay nit yu nekk ci biir internet bi di jaxase biir nit ñi pour tariqa yi pour ñu am problème pour rayante suñu biir waaye tamit nañ bàyyi xel ne nguur gii farfaroo giñ nekkee nii di ko jéem ci kër sëriñ si ñun nañ bañ te ñun kër baay kenn ëpp ñu doole tey suñ meroon wallahi lazim Nigéria fu nekk seeni kaar dugg si biir Sénégal kon baay xajut ci kenn ñun ñoo xaj ci baay waaye baay xajut ci kenn te nag ñun ñoo moom suñuy kurus moom suñuy salaatu faate ku ñu neex ñu fudd ndiggam wallahi lazim soo leen ko gëmee ku ñu neex ñu fudd ndiggam xatta le raïs président sax suñ bëggoon ñun taalibe bàyyi laa la wax wallahi suñ jëlee suñ kurus yi bëgg mu jóg fi sax mu jog fi waaye ku ci nekk am nga foo far foo man APR la yaa ngi dégg keneen ki Sonko la keneen neneen la keneen neneen la loolu rek moo tax waaye nañ ñu may jàmm te bàyyil ñu ci suñ Cheikh Ibrahim Niass maa ngi wax taalibe bàyyi encore une fois coow yi ngeen di dégg yëpp ñu may saaga ñu may yëngal du dara xam nga sëriñ dafa am ñu am complex ci seen bopp dañuy yaakaar ne suñ ma xabalee ci saaga yi dañ naan kii borom mbooloo la te dañ koo gëm dafay ragal gàcce xaar mu daw làqatu ci déedéet maa leen di waatal ci yàlla li ma am dëgg la te mu ci sama loxo billahi wallahi tallahi barke Cheikh Ibrahim te du ma waatee bàyyi mukk ay fen te li may wax nii Bala ñu cey xam dara nañ o waji ngeen xol di ngeen xam ne ndax danaa ko teg wala duma ko teg luñ leen mën a wax na leen waji ñu ngi koy wër ay fen la man awma kenn ku ma mënal dara ci kaw suuf maa ko xeexuma kenn contre ma kenn waaye kenn mënaluma dara ci réew mi doomu cheikh ibrahim ñes duma benn fëlëx fëlëxi ku ñemee nga nga ñëw nga taxaw ci sama kanam doo yegsi sax doo بالله والله تالله